اللهم تقبل منا قدم القرآن وتجاوزنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تهريف أو تقديم أو تهكير أو سيادة أو نقصان أو تهويل هرق ما أنسلته أو تهجيل هنا تلاوته أو كسل أو سرعة أو سيق لسان أو وقوف بغير وقف أو إتقام بغير متقم أو إسهار بغير بيان اللهم بلغ سوى ما قرأناه والنور ما طلناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح أبائه وأمهاته وأسواجه وسرياته وأصحابه رضوان تعالى عليهم أجمعين ولأرواح جدنا مام أحمد بامبا مكة ولأرواح جدنا مام مور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 seydil muhsinina imaamil muhajirina sayidina wa nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam am pas-pas def ko ni ko bëggee ñu leen sant ci loolu bu baax a baax a baax ñu leen sant bu baax te di gërëm bu baax la ci tegee mooy ñu ngi sant ñu ngi sant waa bopp yi nga xam ne ñoo bàyyi ko Dakar ñoo bokk ci ñun siyaare bi ci njiital sëriñ Bassirou gay ren ki ko daan jiite bu dafa am ngànt man da ñëw Alaaji Babacar Gueye moo ko daan jiite man da ñëw ren dafa am ngànt kii jiit euh, sëñ Bassirou Gaye euh, jiite ko ñu ngi leen di sant ñoom te da leen gërëm te xam ne ñoom sëriñ dañ àndoon moom ci ndaw ba nekk mag tàggoowuñ kon ànd ba ngir yàlla la sëñ bi bàyyi yitte yëpp ñëw wax dëgg fa yàlla kóllëre gi mu wëllërente ak sunu baay sëriñ ngay waral ko ak mbokk taalibe yi moo tax day sàkku ci mbooloo mi yëpp incha allah comme programme bi dafa war a dem ba ngoon dem ba guddi képp kuy kilifa rek incha allah war na fee jël kàddu te bu soobee yàlla dina fi jël kàddu kon dañuy seet fexe rek seet nuñ ko gàttalee gannaaw sëriñ bi mu joxee ndigal kon niñ koy defee rek moo di incha allah ñu xam ne njabootu El Hadj Amad ñi ngi fi teew njabootu njabootu tafsir Aliou ñu ngi fi teew waaye Njàllo ñu ngi fi teew njabootu góor gi Chérif Aydara ñu ngi fi teew imaam yëpp ñu ngi dañuy jëkk sant yàlla defe naa bii mooy ñaar fukkeeli at yu ñuy teew fii ci jàng yi eh, loolu nag kóllëre gu ñuy mottali ak sëriñ gay nga xam ne ba ñuy jàng ca ndakaaru la ñuy ànd ba tey loolu mu ngi bëgg yàgg parce que groupe bi ñi ci ñi ci nekk ñëpp gis nañu seeni sët te lu lu yàgg rekk dëgg la loolu moo ñu fi indi at mu nekk ñu fi ñëw ñu ñaan yàlla yàlla may ñu wér ak gudd fan ba déwé nit ñu teewe ko jataay bii yàgg na yàlla gën a yàgg jotaay alquran kitabun karimun min karimin mukarrimin li abdin karimin nasar khol xawl xar baax sëriñ na alquran tere bu tedd la jóge ci borom bu tedd ñu ko ci tedd alquran day terle kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nunju bihi dunia wa karbi kar bi sabal xa dina koo jël diko la léegi gën a kawe di ko lañ diko tak tag alquran yalla jox ko ndigal mu di ma man rasul rafa anil qur'ana an khafada man sa taxadimi fan khafada serigne waxam guddul su yalla yalla ak matam yegg na ci alxuraan bi ko waxee ba léegi kenn déggul mu wax waye sa sunu yalla ngi jëf jëf du mu wax waxe day tegtale jëf kon serigne ñoo ngi ci yow bax sa bokk sama gi daane legi di bax di borom xam-xam. nak bo wote wootee dekk no yep teew day jangale ni yow fonk sa dekk ndonga sëf sëriñ ñi teew na yoonu murit moom ñii sëñ Bamba teral na leen dara danaase wu leen waaye taalib bu leen tax a jóg rek am nga taalu bi ñoom waruñu dara wutuñu dara sëñ Bamba ñaan na ko ba yàlla nangal ko yaa rabbi ijhalal muridina ma an fiis nikal asini wasam li ajmaa ci def yi xam kaana saata wan sutee bi xam di jaare sottate walam yakon be mufrate ولم يكن بآدمه كنبي ولم يكن متعما ولم يكن مكلسما ها كل من سما للمتعمل آدمه يومك ووجوه مدور di wax ne sëriñ bi ñu ngi sant yàlla bu baax ndax daaw bi ñu ñëwee fii sëriñ dafa amoon ngantuk yaram ren alhamdulilah yàlla kaafar na ko ba mën ko fekkee loolu ñu ngi ci sant suñu borom bu baax a baax di wax ne bis bi ki ñu ko defal muy sëriñ Mor Gueye kenn la woon ci njabootu sëñ tubaa waaye tamit kenn la woon ci doon jàppale sëñ Basiru ci liggéeyam ci biir département Foundiougne këru murit yi gën a mag ci département Foundiougne Foundiougne Serigne Mor Gueye bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ko jiite woon yàlla dogal njabootam gi it ànd ak sëriñ Abdou Hakim ci àndin wu rafet ne ne danañ ne lii moom du gulet ci ñum ne ne fii fi ñëw ëpp na fukki yoon ci ndigalu waajuram nee na gannaaw waajuram li mu fi ñëw ëpp na juróom yoon ak li fi yónnee nee na loolu dafay wane ne rek mbirum boppam la nee na sëriñ ak i mbokkam ñoom mënuñu am ngànt ci ñoom waaye mënuñu am limite aussi ci seen yi bëgg-bëgg nee na dañoo xàmmeeku fekk leen ak waajuram nee na ba mu demee ba gisatul waajuram it mu continuer feddali seen kóllëre gu nga xamante ne dañ ko dafa jaar seen diggante mook moom waaye jaar jaaroon ci diggante mook waajuram nee na kóllëre googu bi mu koy seq ci kanamu sëriñ Abdou la woon kon nag ba mu fi jogee mu mu continuer kóllëre googu mook njabootam ak i rakam mu ne kon bis bi nga xam ne seen bis la <laughs> nee lu ci waay jàpp ci bis bii jàppal ne waay kër Serigne Touba nga ko nga ko defal ndax ñoo ko bokk nee na ñu ngi sant ñëpp ñi ci sonn jàpp ci bis bi nee na mu ngi sant ñëpp di leen gërëm di xam di leen xamal ne bis bi lépp lu ngeen ci def moom ngeen ko defal ndax bisam la لا شريك له وإنا لتوخى والهلم ورسادي لا سلت ما هي سر وقاديا تار وتارداخ يار من الخلاد وسافدا كل شيء تنل بما مهاه ومرهفا لساوي الإحسان بسفادي وموسب الكل ثاني نديخ بها في دار أفداة يا موسب النكادي وسائد من ما نفوس به من جود كاري من عافه سيادي يا سرر بالكريم من فيك جادلنا بليلة الخريصة للفال والرخاد إني أهيبك بسات سات لاب من مالك قائس هذا بلا أوادي زبادا العسى يا برجارم يجر اليمان بالخلاص يا سيدا يا سيدا في المعلي خلاصة ويمغبا فؤاد دار مسوام إني أتيت بوجه الله سائركم أو خبين لما أرجو وأهواه يا رب الجنان من الزيدان وجورة الجيران وسلطان يا رب نجنا من الزيدان وجورة الجيران وسلطان وكل نافس على الخدى وسالم وعابد وصدى سنبا منينا وتاريخ نسيت تملا لا برم جارم وكل تنمس وسن بني لام فبذاي yasriful balaya balaya balaya wa birraja yujidul ataya fa bido yasriful balaya munjarim wa birraja yujidul ataya defe naa koo xam ne doomi Sokone nga foo mës a déggee naa la jalaala naa la jamaala mi man taala rabbi samaai muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barkeelu ci bind yu barkeelu Sëriñ Tuubaa cosaani bayit yooyu yaa ngi koy déggee fii ci Ngayeen ba soo koon tolloo jamono boo xam ne doo doon jël fukki dëkk ci kër ci dëkk bi rekk fukki kër yoo xam ne doo fa yeggee gis ñu gëm sëriñ Touba kër gi bokk na ci ñetti kër yi wala ñeenti kër ya ca jiitu boobee sookoon doo doon tudd sëriñ Touba wala ngay fekk waa kër sëriñ Touba ña gën a rafet njort moo leen ñi leen boole sax ci jullit waaye dañ leen doon seetaan ni kermes booba ab murit yaatuwu fi te yaataluñ ko yaatuwu fi te yaataluñ ko nga kër Baye Cheikh Lo kër sëñ Mor Gaye kër Mbayeen waa kër sëñ Bassirou waa kër sëñ nu mu tudd Baye Gayaar sëñ Cheikh ñing da nga doon wax par benn kër sëñ Moussa Yaaka benn benn ngay wax na ñii kër murit lañ ci ngor nangul yàlla lu ko kenn nangulut nangu lu ko dal ci lislaam lu kenn nanguwut mu dal ko mu nangu ko ba yàlla def ko mooy xaadimal Moustapha léegi-léeg ñen ñu doy di ak ñàkk nangu dogal yàlla di wax ne mooy mbindaanu rasulillahi jar na ko ngir Moustapha mooy dàttug liggéeyal yàlla waaye du foofu moo doon biir ak biti rasulillahi mooy xaadimal mustafa ko gis limu reey reey ca bax batu baatu xaadimal Moustapha kenn mësu ko deg ca doo ko déggul ci Cheikhul Qadim fek na fi l'islam ñu doxale ko ci teunk rek iman islam ihsan fek na fi l'islam def ci téré yi tawhid fiqh ak tasawuf loolu la fi fekkoon ñu baax ñi baax liggéeyal yàlla ci doxin woowee loolu la fi Cheikh Abdou Qadir Jeylaani sultaan al awliya yi def loolu la fi Abul Asad Saazeli yu def loolu la fi Imaam Ghazali def loolu la fi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif def ñooñu di xutbu sabaan ñu baax ñu baax ñu baax wax naa ko ñetti yoon waaye sëñ Tuubaa moromante wul nag sëñ tubaa du morome ku yàlla bind kuy dëgg rasulillahi bam dikkee ci liggéeyam ba doxin woowee jëf ñu baax ñoo ñu doon def dafa delloo suwaatam daara ju àndut ak daa mooy lan jaayante ga saaba yi jaayante woon ak rasulillah wan ko nekk gëm nañ yàlla gëm la doyloo la ànd ak yow xeex badar xeex unay waaye wóoruñu ne dañ dugg àjjana ca dara du sikk sàkka du ci am Moustapha aleyhi salaatu wasalaam dellu wax ne leen àjjana ki ko bind bind ma moo ko moom ca la saabay jaaye teg rasulillahi jox ko bakkanam joxe seen alal joxe seen lépp inna la asra min al muminina anfusakum wa amwalahum bi anna lahum jannata yuqaatiluuna fi sabilillahi ba ilaafiin jooni jaayante boobu ca Udaybiya la sëriñ Tuubaa delloo suwaat kon sëriñ bi sosut dara dafa sof la woon ci Muhammadu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rek la dekkee sana ilaahi bil munaajaat كان مناسعا وصاب المريض ما سجن سررا bokki Sokone ci bis bu tedd bii ci béréb bu tedd bii ginnaaw bi ñu tàmbalee ci turu borom bi nga xam ni moom rekk ay yàlla واخني قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفان احد مون سيدنا محمد نغا واخ جامي لين من يالا كين لا جروما تا كين جروما من يالا او من نولا كين لا رسول الله صلى الله عليه وسلم jàngale tawhid fukki at bi ko yàlla yónnee dogari ñaan jëgi jëli julli pour wane ni yàlla kenn la cheikhul xadim bi mu ñëwee dana lasta bi walidin walasta bi walat yaa rabb ku la walidin wa ma walat yow yàlla amoo ndey amoo baay te amoo doom te ku sukk jur mbaa ji ko yaay boroomam wal xadiimu maa lahu bidaaya wa maa la oo ni aya cheikhul xadim nee na yàlla moomu moo fi jiitu woon te jiitam googi amul fu mu tàmbalee bu ñëpp faatoo moo fi des te desam googu amul fu mu yem borom boobu noo koy sant moom sunu boroom moom mi nga xam ni moom rek a yeyoo cant yi moom mi nga xam ni alhamdulilah joo gis yi moo ca topp ci baaxe gi ma nu baaxe nu gëm ko maa kaana li nafsin an tumina illaa bi isnillah sunu borom nee na ku ma gëm ci yéen man la soob kon boroom xam-xam yi nee ñu ko yàlla may ngëm yi yàlla nga dund ba dee te yàlla ci ngëm gi mu la may bala ngaa faat sunu borom nangu liimaanam yàlla na ci yàlla musal borom boobu nga xam ni dañu wax na aw saan boo ko sànnee ren muy daw fukki ak ñaar dal fa nga bëggan yàlla moo la jàppale waxtu wi daaw lañu ñaanan fekk ko déwén fekk waat nañu ko yàlla participé aka bari ñu fi dem bar te defuñu yàlla dara aka bari ñu fi des te defaluñu yàlla dara yà sëriñ Tuubaa yàlla dara waru ko ci coobaram la ñu bind ni jaamu leen ma wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni fukki weer ak ñaar mu jox jël malaaka yi jox leen service ni ñee nañu dem bàmmeel ñele kaso ñee hôpital douze mois malaaka yi dal romb góos ak droite xam nañu la xam sa ndey xam sa baay xam fi nga dëkk démoo ci kaso nekkoo hôpital demoo ko ci bàmmeel nga naan dëkk bi neexul sunu borom ni la góorewoo walakin aksara naasi laa yaskuruuna borom boobu noo ngi koy kennal di ko jox li mu moom xam ne moom rek yàlla yàlla bokku ci benn groupe boo ne yi mooy seen borom boo ne wàllu yi mooy seen borom ñi si des yàlla leen moom sëñ Bamba nee na wa xayrullaahi lillaahi sëriñ Tuubaa ne lu dul yàlla moom loola Cheikhul Khadim nee loo ñàkk lu dul yàlla am na lu ko mën a wuutu ba nga fàtte loola moo xam ndey la moo xam bàyyi la moo xam soxna la moo xam borom kër la waaye sëriñ Tuubaa moo xam alal la sëriñ Tuubaa loo mën a ñàkk ci àdduna am na lu ko mën a wuutu ba nga fàtte fàtte loola waaye ku ñàkk yàlla ñàkk nga te sëriñ Bamba nee lasatan aqira benn gend ko bu néew yàlla dina ci gédd jëf waxuma laa nag wax benn génd ku bu néew rek suñu borom dina ci gedd jëf te réew moo xam ni marchandise kenn kay jënd muy sunu borom comme gedd la nga yor foo jëm dafa la nu jëm nag yow mal xiyaam ñoo diggee woon nii rasulilaay lañuy ñuy waxtaane ren xam nga tijaan ak xaadir ak murit ak laayit ñëpp moom lañu ñu bokk ñëpp Moustapha seen kilifa sëñ Bamba ne ku juyoo njool màkk baax le woo moom rek la yàlla yónni la ko jiit am na yonent waaye ci yonent ci la yonent yi jeexee mooy xaatama nabiina wa imaamil mursaliina màkkatal mukarram la dëkk màkka nag bari tur tudd na màkkata tudd na bàkkata tudd na umul xuree atum mi ñuy wax amal fiil ci la gën a jamono muy atum ñayya lu war atam ñay abraha moo tàggat aw ñay jël seen raan jox ko ñay bi liggéey kaaba ca yaman ni kaaba ga ca màkk laa bëgg a toj alal dafay dem fii laa ko yéene bu ko defee ñépp bàyyi màkk di ñëw yaman général ba ànd ak mbooloo ma war seeni ñay jëm ca kaabatullaahi daje ak Abdul Mutalib maami Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko sàngab xuray Abdul Muttalib fan nga jëm mu ne ko samay gëléem da lay wër mu ne ko wàcce nga sa daraja seen kaaba gi ngeen di jaamoo yàlla laay mabbi man nga naa may yaa ngi wër say gëléem soxna jaxu ba maa ngi lay siyaar ak mbooloo mi ànd ak yow nga xaritu soxna jama Abdul Muttalib ni ko man samay gëléem laa moom waye falil bayt rabban néeg ba amna borom fal rabb rabba haasal bayt mujub kaaba ga ji dem abdul mutalib dëpp dug ci bir kaaba gi yek ci xeru yu wax sabir tambale ñaan rek leeru Seydina Muhammad dal li melxit ci bir kaaba gi mu ne sunu ñaan nanguna kàccoor bi li mu bëgg du sotti Abraha continuer ba jub kaaba ga yàlla wàcc ay picc alam tara yàlla nga koy nettali seydina Muhammad sallallahu alayhi alam tara yow Muhammad xanaa gisoo kay fa faxala naka la jëflante rabbuka sa boroom bi asaabil fiili ak gaa yi nga xam ni dañoo war a yeeñ war nañ ñooy alam ndax ñoom defuñ seen pexe ma fi tadlil ci sànku en kay war sala man yàlla yónni naa ci ñoom tayran ay picc yoo xam ni abba bii la am ndiiraan la ñu tarmihim mi ngi leen di sànni bii jaar ci xeer yoo xam ni min sijjiilin mi ngi bàyyi ko sijjiin fa jaalu ma def leen ka xastin maakul ñu dee ne wéret mel ni ñax mu dee ba nag yi di ko lekk xeer bu ne picc mu ne jël na benn xeer képp ko ci tànk yi dóor ko ci benn bopp yéefar mu jaar ca put ga jaar ca dënn ba jaar ca biir ba jaar ca lamoor ñu ànd daanoo ba mu des abraha général bi lu tax deewul su deewee histoire bi waa dëkk ba duñu ko mën a xam ñaareel bi ñay wi mu war ñay wi daa gëm yàlla ñay waa ngi dëgg tuddan abul habas ñu koy dàkkante ci mahmoud mu dëpp menn moom dellu dëkk ba waa dëkk bi ni ko xew mu ñu màndaleen ñépp dee nañu waxtale na am ñoom daal ay picc jël xeer dóor ko seen bopp mu jaar seen nangam ba wàcc la ñu waroon dee man ak sama xërëm yu rëy yi ak sama xam-xam bi moom mu musal léegi yeew na ñëwee palaasam nett la histoire bi ndeke picc mi ngi ko topp <laughs> ba ma waxee béegal picc ba ni cib cib mu ne bu mel noonu la bu jël xeer wa dur ca bopp ba kooku mooy abraha soo gisee sànni jamra ba mu jaaree mun naa yoonu màkk riir ko ibnu rëqaal a ko tegtal yoonu màkka ibnu rëqaal moomu noonu bi yàlla bëgg a toj néegu bi yàlla ba mu koy tegtal yoon wa yàlla fay na ko ca ibnu rëqaal ba mu faatoo fa ñu ko sul ca màkka ba léegi xeeri jam la ci bàmmeelam lay dal loolu ko yàlla fayee yàlla ëpp naa tooñ te dem ngun yomal xiyaam abdul muttalib mooy maamam nabi xuraysi la makki yi la abdoulaye miy baayam nag maamam moo faggu ñaan goo xam ni ci la ko yàlla nattoo ñu war koo rendi abdul mutalib ba tëdd baay ak ni dem fa kaaba ga ni yàlla màkk gii am naa yéene liggéey ko may ma njaboot ba amee fukki doom yu góor yu ma jàppale ci liggéey makka naa ci rey benn doom santale ko moo tax ci lislaam soo mébétee dara soo ko mënee da nga koy def maa yàlla may ko fukki doom Abdoulaye caat ma mu fàtte ko mu tëdd gudd ñu fàttale ko ci gént fàtte fàttalu deuxième guddi ga noonu troisième guddi ga nag mu jóg nag ni kon jot na dem ca labbe bi nekk saam labbe bi ne ko ginnaaw nisër la sa doom yi dañoo yem ci yow da nga leen di dajale sànni bantum ndee ku mu dal ci kaw nga rendi ko Abdoulaye mi ni nga xam ne leer njool màkkaan ci moom muy xele bu góor bu rafet yiw yaru taaro leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam musul yaa ci ndigg loo xam ni borom mas naa moo yàlla mu dajale doom ya sànni bantu ndeeba mu dal ci Abdoulaye mu tër ka fa gaaba ga yeew loxo ya yeew tànk ya jël paaka ba bëgg koo rendi mag yi màkk yuuxu ni ko xele bii ni mu yiwee ni mu taaroo ni mu yaru ëpp naa ren ay génti dellu ci làbbe ba mu del laabe bi ne ko ku rey nit ci yéen lu ñu koy dëyaa mu ne xanaa fukki gëléem mu kon da ngay jël Abdoulaye jël fukki gëléem sànni bantum dee bi bu dalee ci gëléem yi nga rey gëléem yi Abdoulaye mucc bu dalee bu dalee ci nag nga dolli fukki gëléem ba keroog mu dal ci gëléem yi mu jël Abdoulaye sànni bantum dee mu dal ci Abdoulaye ñaar fukki gëléem mu dal ci Abdoulaye fanweeri gëléem bu dal ci Abdoulaye ñeent fukki gëléem bu dal ci Abdoulaye juróom fukki gëléem bu dal ci Abdoulaye ba téeméeri gëléem mu doog a dal ci gëléem ya kon Seydina Muhammad baayam téeméeri gëléem lañ ko jote ñu may ko moom sunu yaay Aïssa mu ànd ak moom ñetti weer Abdoulaye faatu fekk lor njël maa ko jóge Abdoulaye ñëw ci natu salaasa bi am at moomu nga xamee ni ca leer gi dégg ci aminatu aminatu malaaka jinne yi ñëw na maanaam yonent yi ñëw nañ ci ko lokkeel baa ibrahima ñëw ne ko yaa mba saydal xalqi Moussa ñëw Isa ñëw yonent yëpp labbe ñu wax Buhayru nekk fa labbe ba jàngan na biibil yonent bi yàlla mu jógee ni jamono melekaan yi muy yore naa ci ñëw ci kanam sëñ ba indi na ko ci jës bu mu seen mbooloo di ñëw mu ne xam na dañu wala ab yonent a ngi ci te boobu douze ans la mu reyee gëléem def ay njoganal bokk na ci baaxu arab gone yi duñ jaxasoo ak mag bi nabi denn ci den taatu garab di garde bagaas ñu yekk ndab yi laabi bi xool ndax ñëpp ñëw nañu ñu ne waaw mu am am na ku ñëwul ñetti mandarga la yore sëñ Baba njool màkk mboola mu mu toog mu ci gën a gudd boo ko jigee mu sut la boo ko daanee mu toll na dafa digg doomu woon kaana yettoolu ku la man masa aw fi kulli saman wa kaana waasal atan sëñ Baba njool màkk dënd ba dafa yaatoon yaddaxaku bi tabasumi bu ree day muñ waay du xaxtaay laabe bi dogale ko jamono baay ibrahima ak muusa ak isaa di ko li ko laaj muy tontu mu ne kan moo ànd ak xale bi ci yéen abo aboo taalib ne ko man la mu ne ko lan nga ci moom mu ne ko maay baayam mu ne ko tub ko kii ndeyam dundul baayam dundul mu tiit ne ko wax nga dëgg maag bàyyee bokk ndey ak baay faatu na ndeyam faatu na mu ko kii yàlla yi mu yónni ci jamono Moustapha ci douze ans na nga ko delloo na mu gën a gaawee moo di ko makkatal mu karam ba ab abdu aboo taalib daa néewoon wërsëg te bari njaboot mu ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam booba nabi am na vingt cinq ans demal ca Xadijatu mi ngi jël ay ay surga di leen liggéeyloo nga ngay jàppale ma ci kër gi nabi dem Xadijatu jël ko gis ko rek taar baag yiw gaag noppi gaag yar baag dal ga ku bari woon kersa la rasulullaay du xib xool nit mu jël ko mu koy liggéeyal moo la ko benn jaam bu ñu wax may saratu di ko dee ma xoolal kii xam naa ne mbir a ngi ci moom bu nee ba ci diggu naaj sëñ Bamba nee na dara néew fa niir yu ñëw ko keral Moustapha daawul dox naaj niir yoo koy keral kaan yu suy loolu xamaam sëñ Bamba njool màkk mus njool màkk du geesu ni mu xoolee kanamam lay gis a ginnaawam yara wara aw amaam waaye loo kaanata naam waxal bu walam yenn mi su bëti ne loo baa ngi gis sallallahu alayhi wa sallam ba benn bis Xadijatu ni ko ndax bëgg nga soxna mu ne ko bañu ko de ndax bëgg nga mag mel ni man mu ne ko bañu ma la booba Xadija am na 40 ans Moustapha am kon góor mën naa seeg jigéen ko mag nabi jàngale na ñaar sëy naag ko mën a jur sëy naag ku ko mag aysa baayam abubakar na bay ko mag na bi denc na aysa sunu yaay aysa musa juróom-ñaari doom lam juróom benn yëpp xadija doo ko jur kenn la ci jurul mu ibrahima mariatul xibtee ko jur moustapha xare na ñeent fukki xare juróom-ñaar mi ngi dund cent trois cent ci quarante ans la ko yàlla yónni cinquante ans ñaan julli julli maaka ñetti at gars yi sonal ko mu dem Medina am fa 10 ans muy 63 ans ak dundam jeex mu nekk Makkatal Mukarram ci cinq ans ànd ak Xadijatu ba Xadijatu nelaw mi ngi ko suul ajool armée ci Makka yi ñu wax ajool fa ko suul bi mu yore Xadijatu yore benn soxna jigéen ju tedd Xadijatu am wërsëg fonk boroom këram féete ko fépp nag. ci di ko financé ba def bàyyi ko kàddoom yombul nag jigéen ji yor boppam yor la ba pare bàyyi la kàddoom nga di ko digal yombul koo koy xadijatu moo tax ba mu nelawee ndeysaan nabi daan toog Aysa ñu xam mu xale la woon suñu yaay Aysa jooju naa ci sama soxna sa xadijatu ak maa muñu leen ak maa jàppale woon kooku nag mbirum jigéen jàpp ko ne mu ne ko dama ni boo amee jigéen ju màggat nga yàlla may la gone nga war ko mën a fàtte mun ko xadijatu du ma ko fàtte ba ma ñàkkee moom laa gisan ba ma wéetee moom ma li moom laa jural njaboot gi ndeysaan bi loolu amee ci 39 ans 39 ans astaghfirullah 35 ans fanweer ak juróom Hajar al Aswad dañ koo wàcce woon xeer woowu defaraat kaaba gi boo ko jëlee palaasam ñu see xeexoo famille bu nekk ni ñoo koy teg palaasam ñu daal baabu salaam bële ku fa génne bu ñëwee moo ni atte Moustapha génn ci bunt boobu ci 35 ans ñëw jël benn mbalaan lal ko teg ca xeer wa daal ni famille yi ne kenn ku ne jàpp famille yëpp jàppandoo yëkkitendoo ne bu jël xeer a teg ko place ci 40 ans nag la leen jabaru nuur daan fa wéet nag ñu ko xaaru Iraa benn bis nag Seydina Jibril soppili ku jëmm ne xoñeet nuroog nit daal koy mboq ni ko iqra jàngal nabi ne ko ma ànnaa bi xaarin man jàng du sama baax mboq mboqam ñaareel ni ko jàngal mu ne ko jàng du sama baax mboqam ñetteel mi ci la koy ne cas séparé ko suuf téye ko fa mu yàgg mu bàyyi ko mu daanu mun ko anta muhammad ana jibril iqra bismi rabbika yow yaay muhammad man maa jibril jàngal sa turu borom ne bi jóg naan sàmmi loo nii sàmmi loo leen ma ñëw nag magi makka ni xamal na dana jommi ñëpp nekk ci pénc mi mu nekk ci àll bi rek xale ba jommi na xaadi jët nag ndeysaan di tëpp tëppi rek su foqee musóor gi ndax jaaxle kiris gi jeex su musóor waatee muy kiris mu dem ci waraxas um nawfal benn labbele bu jàng bible ci diine yontaale yi saa la nekkan yow sama borom kër daa jóge ci àll bi di xëm seetlu naa lenn nag su ma dindee sama musóor kiris gi jeex su musóor waatee mu kiris mun kooku naamu su musaa la sa waa ji yonant la malaaka du gis awratu bopp jigéen awra la soo musóoree malaaka mi dellu si soo soo fekk musóor gi malaaka mi làqu kon fi ne malaaka yi làqu bari na ji ak bari malaaka yi làqu ndéem dindi bopp ne nag mooy làquloo malaaka yaramu neen garaaw na allahu akbar ah almaratu kullu awratun ma adrawtil kafayni Mustafa nee na jigéen lépp am oro la ba mu des xar kanam ak ak jigéen ndakaar am na jigéen ñoo xam ni bu lislaam baaxul bu ñu dee kenn du leen sàng ndax dégg nga ma ndakaaru am na jigéen ñoo xam ne islaam baaxul leen bu ñu dee kenn di leen sàng ni yére yombe ni ñu baree seen biir di feeñ ak seen i mbagg allahu akbar ba ñu xëy faatu rek yem naa ci benn accident fële ci autoroute xale bu jigéen kilo la sol moom la deewaale man ko man ko boo boo looy xamul kiloot fii nga faatu ci tali bii lee xamul fan la lay fekk lu ma ta waajal la kenn du ko waajale fir aayul ñaawul toxo fi la dem fenen fexel ba yóbbu ab yóbbal rek utul bi yóbbal fii du keur ab rombu way la il faut nga gëm lolu il faut nga gëm ni fi du keur lo fi bëgg-bëgg tok yalla ko dul nangu dula xamal kañ la nak ak fan la ak nan la la tadri nafsun bi xeer tamut la tadri nafsun ma sa taxi bu xadan yàlla neena ñaari xamulen ko li ngeen jëf li ma ci nangu xamulen nu mu tollu bari na wala néew na moo tax nit sa degeeru fit da ngay dem ci dejj ñu di diwa nga àjjana may la ay waay yéen ñi ma yalla lu ngeen ci xam lu ngeen ci xam lo def nako ci lu bax yalla xam nako ko te mën na ko mën nangu sëñ bamba loolu wax sëñ pas dana jëf ji bu ci konté yalla man na nak ne jëf ji wuru la deex lu ko wuru lu mu bax bu ni ma nga aljana yoroo aljana mo moko xam fan la ne neel bax na rek ñant nopi dégg tax dégg rek bol tax ngay diko tag lo xamul da ngay faatu ni mom defal ndànk jëlu yakamti jëru yàkkamti dee moom dee kenn jërul te añ yow di sa bos jotee nga da nga faatu barke ba mu Mbàkke waajal ko rek ci jàmmu yàlla Xaadijatu dem ca war xal mu ne ko sa waaji yonant la Xaadijatu dellu si ni nabi lu xew mu ko yàlla mu yónni mu ne ko gëm naa la watax lislaam lislaam après njool màkk jigéen a jëkk a gëm Xaadijatu Seydina Alioune bi mu dugg ci lislaam dix ans la am Abubakar ñëw ni gëm naa mooy sa turandoo waaw ni ko man ma gëm naa la nabi nag léegi amagul ndigal siiwal mbir mi xam nga nu defa dugg ci benn kër rek ni borom kër gi delal buntu kër gi kooku ne ko loxo mun ko yàlla mu yónni kooku ree ba jaaxaan ne ko ban yàlla am na ñetti téeméer yàlla juróom benn fukk ñu ngi fii ci kaaba gi ñu di leen jaamu suñu aajo fa yiwul mu nga woote yàlla joo xam ne mënoo ko wane nesan mu wax ba rek bu demaat bu suba mu demee ci gën kër rek suñu borom ko léegi nak fasta bi waari musrikin léegi nak bëggatuma masla nako ko ñëpp dégg kere ba mu yéegee jabalu nur ni yaa mastara quraysin fukki gi rek ñaari ñew muy leen fi ma yek tim leen ci xeer yi suma leen non am na ñor ay gannaay di xex seeg yeen tax di ngeen ko gëm ñu ko gëm ñu la ci benn gëm la mu ni yalla ma yoni ci yeen abe moko moo ko tabban lakka alihasa jamaxtanaa parce que dañ ñeel na la kilifa yi toll noonu nga dajale nu naa yàlla ma yónni ana yàlla suñu borom wàcce tabate daa abi lahabin alxuraan ku ma xas dootu Moustapha wàcc gaa yi xoj ko xoj seen Abubakar Sadiq téere yi nee ñu Abubakar Sadiq bi mu ximmilee ko dani fekk yëgu ba ni yoon Makka ngi dund dootuma lekk dootuma naan ñu ko nabi ngi dund loolu ci quarantième antenne la mu tàmbali woote bi mu metti lool saaba yi duggaay jàpp leen lakk seeni poqataan di leen dóor bilaal mi umayata ko mooman dafa rëcc ñëw dugg ci diine ji umayata jël ko tëral ko ci naaj yeew loxo ya yeew tànk ya jël xeeru rëy teg ci dënn ba di ko dóor karawaas ba naan ko weddi yàlla yi muhammad bilaal na allahu ahadun lislaam yàgg na ci metti mu di ko dóor digg fitnaan abu alal jar faj Abubakar la génne portefeuille am ni ko xam ni ko wax ma loo koy jaayee ama yeta wax lu ko neex Abubakar fay ko ni ko liibar nga ci tudd yàlla dala koy yiwi goreel naa la Abubakar Sadiq lam yasrib xamra lam yasrib xamra musul naan sàngara musul jaamu xiram Abubakar Sadiq ndeyam ak baayam umul xëyree ndeyam ah xoofataay baayam ñoom ci lislaam ñu dee Abubakar Sadiq ne bee ko ma nga ñaari at ñaari at dund ginnaawam ñoo am lu ñuy dund bi bi nelawee moo ko ñaanal ci béréb bi ci Medina saanis nañ ni ca xaaru idaa bi loola Moustapha ne ci loolo yebal saaba yi ci bur najaasi yu ñu dem fa dellu siwaat gi mbir ma gën a tar waa Medina bàyyi ko Medina ñëw Màkka ni ko nun gëm nan la kon na ngeen xam ne gàddaay gi daal ñu ko jiitu waa Medina ñëw Màkka gis Moustapha ni ko nun gëm nan nangoon nan la ñëwal Medina moom ne sëñ Bamba naan wala si aajara lil madina waaye nag bi amri rabbihi fasaana diina boo moom jol makka la si mooy ka nga xam ni aajara gàddaay na lil madina jëm Medina waaye bi amri rabbi ci ndigal la boromam fa sabab soosu saana ci la ñu ngole dina dina lislaam kañ la gàddaay bi mu ràññee riñaanee moo jëkk gàddaay gi riñaan boobu juróom fukki at la fan la nekkan màkkatal mukarram néeg Umu Haani jigéenu Seydina Aliyun Fatimata Sahra doomam génn dajeeg Seydina Jibril mu yor jëmmi nit waaye ni mel yéeme na mun koy koy seet mun ko Muhammad uridu Muhammad dugg ci biir ne ko papa am na ku lay seet koo xam ne musuma gis ku mel ni moom nabi génn fekk muy Jibril mu ko Jibril a wax yu nasa la am am am du addasa am wax dun azara daa mbir mu bees moom a yëgal si wala sama dig daa jeex ma war a dellu ci yàlla wala boog daam la nga ma daa indi moom nga ma indil muy muy muy muy alxuraan mu ko déedéet lu ci benn sa borom nee na nga solo te jàpp tey ngay dajeek moom rendi bu rëy ngoog tey ngay dem kër yàlla aras xam nga fan mooy aras fii asamaan doxub juróomi téeméer la boo ko doon dox asamaan bu nekk talaay ba doxub juróomi téeméer la asamaan bu nekk moroom ma diggante ba doxub juróomi téeméer la ba samaane jeex mu dugg kiiraay ya dugg déele ya ba yegg ars ars sori na de àjjanaan ci ginnaaw juróom-ñaari asamaan àjjana ma ci ginnaaw juróom-ñaari asamaan safara mi ci juróom-ñaari suuf moo tax julli bu faatoo ba tey xolli ku weex tàll tax ruuga xool bu dee yéefar ba tey day lamsal jëm suuf moo tax ñu sang nii yoo xam ne ñu ko texee texewul jamu yalla mën naa def ya ngi deg legi mustafa riñan jibril jibril ne ko sa borom ne ko si ko wala sëñ Bamba naan xat baata yasri min baadi tuhri waaye mu dimbali fi lan bi mustafa japp japp ben ben di lay bàyyi Ibrahima ba legi boy sang farata japp mom ngay japp japp ben ben mu ngi war bu yew bu rax ci ginaaw dekk ba ca makka jibril indi bu rax mi ngi ni ni janggale mi ngi tol ni bax la yore yaramu fas kanamu nit yor ay laf ma ngay cëpp cëppi jibril ne ko na nga dal ab sangalee ba nga war mu ko aadama mooy safatullaahi warnama ibrahima moy xalilulaay war na ma moussa mooy isa mooy ruhulaay war na mun kii nag mooy safa borom bi tabaraka taala muy sayyidina muhammad mu ne ko bala mo ma nama war ma kubra nabi waral ko ko war ci kaw buraax fitti cëppee ko ci benn béréb ni ko sa borom nee na nga julli fi ñaar rakka ci diine Baay Ibrahima ma ngi jëli julli ñu sant ko julli moo tax su ma déggee ñu naan julli yàggul ree damay jàpp ku jàng du ko wax diine yëpp am julli julli yee bokkul ci diine ba diine Baay Ibrahima ci la jël Makka doon jaamu yàlla avant muy am julli ci diine Baay Ibrahima ci la jàpp keram yi riñaan ittabi millata Ibrahima alxuraan la yàlla kon toppal sa diine Baay Ibrahima diine jubla te boobu yàlla joxagu ko diineem joxagu ko julli boog laa bëgg a wax nabi riñaan mooy jóg jox guddi burax fitteeg moom dem ba léegi ca kanam am ko taxaw ci wetu ndeyjooram naan ko Muhammad taxal ma laabire la waaye sallallahu alayhi wasallam wuyuwu ko dama diir bu néew am ko taxaw ci wetu càmmoñam naan ko taxal ma laabire la waaye nabi wuyuwu ko defaat diir bu néew benn jigéen bu taaru naan ko Mouhamed taxal ma laabéri la waaye njool maa ko wuyuwu ko yëg si baytul maqdis rek benn benn waxambaane bu taaru ne ko asalaamu aleykum ya rasulullahi nabi ne ko aleykum salaam daal ne waa jibril li ma jànkoonto ci yoon lu mu doon mu ne ko béréb bi ma la wàcc la woon nga julli fa ñaar rakka yonte yàlla isaa fa la gën a jamono sa borom ma moo joxe ndigal nga ormal ko waaye la ke la wàccatu ndi joor kooku bu la yàlla baax na di ko yóon soo ko yóon saw dañuy yëxootu ki la waseetu càmmeñ nasaraan la yàlla baax na bi nga ko yóon soo dañuy nasaraan jigéen ji la dogale mooy adduna boobu soo ko wuyoon dañuy tànn adduna bàyyi àllaaxira yàlla baax na bi nga ko wuyul ba xabaane bi la nuyu nag kooku mooy diine lislaam yàlla baax na bi nga ko fayee boo ko fayuloon day dem ñu ba si naqadis fekk fi ñetti ndab ndabal meew ndabal sàngara ndabal ndox ñu ne ko faxtar tànnal bu la ci neex nga naan salaasalaam jël ndabal meew ma naan ko ba mu sori mu war ci bonaax nag jëm ci asamaan yi daal ni waa jibril ñett ndab yooyu lu muy tekki moo ko gis ndabal ndox li ndabal ndox li boo ko naanan sa xeet dañuy yeefu si jàmm yàlla yàlla baax na mi ngi ko laalul gis ndabal sàngara li boo ko naanan sa xeet yëppay bew te kon ñëppay dem safara gis ndabal meew li boo ko jeexalan sa xeet yëpp dem àjjana ne bi ni ko dimbali ma delloo ma naan la ci des mu ko déedéet sa borom loolu la na mu dem ba baytul mag mu war gis nga dugg guddi googu yàlla jàngale si mooy borom bi guddi googu Mustafaa riñaan yàlla dekkal na yonent yëpp ñu sàbbe ci baytul maqdis mu ne sëñ Bàmba naan xat-xaddamoohu iswajjohu waxtara moo soxoy naqaay gaa yi sàppe ne bi jiite leen nebi bi sëlmal gaa yi yëg ci asamaan yi teere ko boo demee ci xilaas àlla ji Maalik mi naan bi adamin ma isa yusun waxoon nooxin suma aaroona Muusa wala bi ruhumi asamaan bu njëkk ba Adama ak i malaakaam ñoo ko teeru Isa deuxième asamaan Yuusufa ñetteelu asamaan xannoox mooy Idrissa ki njëkk a bind ci ara ci ci yonante yi mooy Idrissa moo tax ci la madrasat bàyyi ko Idrissa tailleur la en même temps baykat la woon moom ma sa burle àjjana nag burle àjjana day jaamu yàlla daa mën a jaamu yàlla bay bëgg dee malakul moo soppaliku nit ñëw gane ganesi ko am ñetti fan Lekul na lu nelaw mun ko yow sa way nañu waxtaan lekul gu du lekk du nelaw fo bayiko mu ko loolu se néew ci su ngan sama ngan jeexee mu ma dem mu ko dem ma bëgg na nga xam wax ma yaay kan sunu war nako feñu ko mu ne ko man may rappel kër yi yi may jirim lo xone yi gone yi may murlo jigen ni may malakul mauti nuka sama ngan yow dootu neex nak léegi est nga que mën nga maa ñamal dee ba ma gën a ragal saa borom donc su ma ca may ndigalal yàlla suñu borom ne ko rey bi ma rocci ruugi delloo ko ko ñu laajee Idrissa dee nu metti ne mi ngi mel ni kuy fees kuy dund moo tax dem ci dëj bi xam dee ne saa moo tax ma gisee kuy def ay njukkal ci dëj damay tiit man te gis naa ko Ndakaar ay njëkkee njëkkee ñu koy jox teral ci dëj allahu akbar ku dee si biir suuf si ak dee ni méttee am benn xalaat bul njukkal njëkkee nii dañoo réer kenn mës a gis lu mel nii barke borom to mbacke man itali ak bo gisee ñi laaj ñi ay sut imam top na imam di foni caxan sama deju wajur papa buñ ko dañu leen balena football ki de xamu ci lu mu nek ñaan loo ko yalla yàlla nga di caxan tambali caxan ci dëj bi te dara xewugul wala bu de dee ñu tok lepp rek bëgg na mbaxal bëgg na nang yéen bëgg lek rek lim bëggan bari na yoy ay caaxaan kep la lim bëgg lépp mënoo koo tok yeen kay bëgg lek lu neex rek nos way yoy du affaire mom bëgg na nangam lepp nga bëgg koo togg déedéet du mbir moom du ko jarign li jarign moy ñaanal ko si dua yanfa umaytan fil qubur wa yanfa al ayya wa yujibul jur li serign koy def ya ngi dégg idrissa ñamal ko de mu ko tax do man safara ba ma gën ragal sa borom mu ko am sama ci ma ndigalal yalla neñ bi mu jubee safara fi safara boko ko manam bu desee tolli fi asman safara sa daro kanam lay ñori en attendant la xaar dama ñor jël kanam mun ko maa ngi biir jaanama mun ko yëgg ko mun ko fii doy na ndax doo yóbbu àjjana ba gën a gën mën a jaamu sa mun ko akay ah, ba ca ndigalal yàlla yàlla ko yóbbu ko mu dem àjjana nag xam nga malaaka xamul plan fàtte fàtte lu fay dàllam dem ba ñibbi si eh na ba fa sama dàll au lieu malaaka mi ko nan dem wala xaaram laaj sax bon ndigal mun ko demal te ñëw saa dem rek jaaxaan mu ne Idrissa mu ne ko lan la ko doo génn mu ne ko man génnu ma dama ko sa borom ko neel yàlla génnu ma suñu borom laaj ko ne ko nekkal tax du génn mu ne ko moo waxan ni kullu nafsin zaa'iqatul mawti bakkat bi ñam dina faatu ñamal na ma dee mu ne ko benn moo waxan ni bala keneen dem àjjana gis safara te gis naa safara mu ne ko ñaar mu ne ko noonu na ku dugg àjjana dootoo génn xaalis dina fiyaa yàlla ko bàyyi ko yàlla sax koy laaf maa nag malaaka yi dinaaw di wër àjjana malaaka yi génn mu génn yàlla dama laafee ba léegi ma ngi yental Moussa juróom-benn asamaan bàyyi Ibrahima juróom-ñaar asamaan Moussa romb leen ñu teeru ko ba Siratul Muntaha Seydina Jibril ni ko mëntumaa dem yàlla wala ko raf-raf téere ñe raf-raf benn taabal la boo xam ne njool des leen ñu ñuul mu mel nag mbaq daal di yegg ngi jigéen ñoom ñaar ne xalaat xocc ga waaye gis nag yàlla ne ko maa la woo maa la invité fii mooy sama kër bala nga wax benn kàddu da may nuyu nabi xamul muy nuyu suñu borom yàlla ni ko la jàngame ni ngi may duwoo walbati ko fay la da nga naan lillahi sakiyatu lillahi tayibat salawatu lillahi nga bàyyi man yàlla ma fay la yàllaa ko ne asalaamu aleyka ayu annabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu malaaka yi dégg seen aleyna wala ibadallahi saalina cheikhul xadim nee na bi ma njool màkk yóbbu ba ci yàlla nii laa nuyu yàlla dama ko ne jaa ilayka ahmadul mbakkiyu wasaadahu ahmadukal makkiyu dana yàlla Momadou Mbacke ñëw na sa kër waaye sama yóbbal nag mooy Momadou Mbacke sëñ Ba ma nekk koy gane koy gane koy ji da nga ko jox suusal bu ne bu ko neex yàlla njool Mbacke ko saf jaa ilayka ahmadul makkiyu wasaadahu ahmadukal makkiyu Momadou Mbacke ñëw na sa kër waaye sama yóbbal nag mooy Momadou Mbacke dinaa ci ñëw ci kanam tey Sëriñ Tuubaa yaa ngi dégg léegi Mustafa sallallahu alayhi dem nuyoog sunu borom sunu borom fay ko yàlla nga waxal loo bëgg mun ko man a xamul lu may bëgg aadama mooy première yonent mooy maam yi ñëpp isa di ruuxullaay nga jël sa ruu def ko ci mariama amul baay suleymaan dawuda am na nguur daan war ngelaw leeg jénn di liggéeyloo ibrahima ay sa xarit u tàq sa laa ibrahima xalila kon lu muy bëgg saa bopp man musaa di kàllaama laa di wax ak yow sans intermédiaire sunu borom nekk boo demee ci Ibrahima suy pukkure woon sama xarit la nee yow sama soppe nga soppee gën a foor xarit xam nga lan mooy xarit mooy soxna xam nga lay soppe mooy doom bi nga takkee soxna si mu ne si li nga bëgg da ngeen di ànd ndax yéen da ngeen xaritoo bu cay génn nga di ko bàyyi moo tax di nga dégg sama soxna la woon waaye doo dégg sama doom la woon baa dégg nga ma doom a gën a jege bàyyi soxna si su miraas ñëwee doom jee ëppale nabi ne ko yaay sama soppe waxal loolu Ibrahima boo demee ca Moussa bu tiitalo kàllaama lay may wax ak moom sans intermédiaire bi yàgg Iblis ni ko dégg naa da ngay wax ak yàlla Moussa ni ko waaw mun ko est-ce que nga koo gis mun ko de mun ko est-ce que essayé ko gis nag maanaam malaaka yi mooy làq fi dox ak yow Moussa ni yàlla dama laa ba gis suñu borom nag doo mën a gis waaye demal tuuri si naa daan la si feeñu Moussa yëg ci xeer nee bi yàlla yaa Moussa daa mel ni monde bi yëpp ay opérateur la yëpp naa Moussa Moussa daan xeer nekk poussière mu xam 24 heures xëmmi li ko nekk pourtant su la neexan saa bu da nga gis ma mun ko man dootuma sax ko gis la mun ko nag am na ko ma xañ man yàlla dépasse amul dara sol la lu faj aajam jox ko bu leen ñàkk man yàlla nga jàkkaar damaa ñàkk bëgg ku ma ku ma ku leel ñu ko soxlaw ak lekk mu ne akay ah am na ko ma ko xañ boo ko joxoon fekk ma fa damaa rafle bëgg ko ma wodd ñun ko loo koy doyee mu ne am na koo xam ne xañ naa ko lu mu sol boo ko woddee fekk ma fa mu ngi noonu mu ne ko nag boo demee ca Suleymaan bu Ndaw da nguuram nga ca moom la yem defal naa la ko dàq Suleymaan ak yonent yi ko jiitoon yëpp ak yi mbokkal jamono ak ñëw am bu ñu mën saan jaamu yàlla dañuy dem ci église ga yàlla du ko nangu jaamu yàlla ko mu ne ko naaw yow rek laabal naa suuf def lépp jàkk yaag saw xeet fu ngeen jullee man yàlla d'accord su neexee dem jàkka ja su neexee sa kër su neexee ci mbedd mi suñu borom ne ko loola dàq nguurug Suleymaan ga yaa ngi say xel may naa leen suuf yëpp nekk jàkka ngir yéen mu lim ba yeggal mu ko nag ru isa ruuraay nag mu ko isa nag moom ñu ne di ma tudd ko tudd defal naa la ko dàq sama tur man yàlla bu suma ko beeloo wenn tur bu ñu ashadu laa ilaaha illallaah bu ñu ci wóolu asalaam Muhammadu rasulullaah man yàlla soxlawuma loolu laa la defal waxal loolu issa mu ko li nga wax lépp nag ci man la yem sama xeet nag mu ne ko saw xeet nag wàcce jox naa la juróom fukki julli nañu koy julli par bis mais loolu laa bëgg man yàlla astafurlah wane sama xeet ak wane sama xeet maa ngi tëb ko ba ci mooy yàlla ci ma at jéggulu ci ma après mu faatu ma jéggal ko nabi ne ko at daa ba dañoo sàggan yàlla ko defal naa la ko weer ku ma ci tooñ ci weer ci biir weer mu jéggulu après ma jéggal ko mu ne ko weer daa bari dañoo sàggan mu ko defal naa la ko ajjuma ma ku ma ci mooy ci ajuma ji avant ajuma jële mu tuub ana après mu faatu ma jéggal ko mu ne ko loolu daafat dañoo sàggan mu ko defal naa la ko bis ku xëy mooy ma ko mu ne ko bari na mu ko defal naa la ko minute nabi ni ko ba tey yokkal ma ko mu ko naa sa gond mu ko yokkal ma ko mu ne ko wàccal naa la weeru ko ku ko ci wóor na mu sellee dootu yamal xam ne nga dem àjjana dootu dem safara nabi ni ko dolli ma sunu borom ne ko xuus xuus xuus jappel jappel jappel nabi ne ko sa ñett jàppal yooyu titlo na ma suñu borom ko jappel sama jam jappel sama lewet jàppal sama yërmande muy bëggee dem suñu borom ko wax nga liggéey bëgg sa bop ak sa do xet def na ko may tam na lu bëgg da ngeen may julli juróom fukki julli par bis Moustapha départ ñu juroom benn asman yent yalla musa noo defal sa borom mu jox na ma juroom ben fukki julli teral na ma defal na ma nangam nangam maag sama xet par bis juróom fukki julli musa ne ko sama xéet ak gën a gudd fan sama xéet ëpp leen ak jot te mënuñu ko dellu mu wàññi ko nabi ni ko jóge naa fa ma noppi de sa borom na la waaye jege na la te ko la sopp la nabi ni yaa rabbi mu ne ko yaa xabdi xëcc mu dellu mu wàññi fukki julli mu del si Moussa ne ko dellul ba tey bari na mu wàññaar fukk mu des fanweer Moussa ne ko dellul mu dem wàññi fukk mu des ñaar fukk ba tey Moussa ne ko bari na Moussa dem mu ya, dem wàññi fukk mu des fukk mu ne ko dellul mu dem wàññi juróom mu des juróom mu ne ko dellu mu rus na maa benn waaye dama moom itam war naa dellu rek nag nga <laughs> itam juróom yi doy na nag ah suñu borom ko juróom yooyu kooku ci julli dafa naa la yooru juróom fukki yema sant ba mu mu ni mu ni kii jibril lii su ma demee abo jaal dina ko weddi mu ne ko sa abu sa borom ne bu ko abu jaal weddee abo bi ki dana ko gëm mu sëñ baaba naan xaaj jaabi mayri li ahli wa baaba leen al saqaay sëñ Tuubaa nee na njool maak indi na xont muy julli waaye nag ñeel ñi nangoo julli waaye sëñ Tuubaa nee na julli ni mu nekk xiiwal ci ñi nangoo julli noonu lekk danse ci ñi gàntu xat jaay bi mali alxi waaye wa baaba dayri al saqaay julli ndigal suñu borom Seexul Xadiim nee na ni mu nekk xiiwal ci ñi nangoo julli noonu lekk danse ñi daan ñi gàntu julli Moustapha ñëw tàmbalee jàngale julli gi ñetti at ci Makka fekk nañ ko mu sëgg di julli gaa yi jog ci loosu yi bëti bëgg a génn fekk nañ mu sëgg di julli jël sébbiritu giléem sotti ci kawam mu sonn fa lool yàlla jox ko ndigal mu gàddaay nag dem Medina ba am nag mbooloo fukki duñu doomu aadama dugg si màkk di fattu màkk naan waa màkk mu ñu leen dékku dugg si màkk toj kaaba ga toj xërëm ya ak ak yàlla yi bon yooyu ñoon jaamu saxal fa dëgg gi nga xam ne moo fa nekk tey waaye nag ba mu jëlee yàlla ya yàlla nekk xaalis nag mu may ko waa màkka nag xam ñoo ko fi defan waaye xaalis bu génnee ci mbooloo rek coow tàmbalee bari waaye mbedd ni ko ah teel nga noo war nag bañ la génne noonu la fat nga am alal jox ko say bokk na bi ni leen waa màkka alal la gëm te ñoo ko fi defan yéen li mu leen di njukkale moo di lakkum ayaati wa mamaati maa ngi dund maa ngi yéen soo faatoo Medina la may suul koo bëgg seera Medina ngay ñëw ba léegi loolu am Cheikhul Khadim moomu nag من خمنا أنا متولون من خادم الرسول قد كان ساته وسطي في الخد جالي ستتي ولم يكن بمفردي ولم يكن بآدمي ولم يكن متهما ولم يكن مكالسما بل فكل من سما ممن تمي الآدمي سيدنا بامن جول ماك جنت موكو بيدم سي جيج ماك ماما اند غودول لول غاتول بديب دون سيدنا بامن نينا ريل بني فتخ سيور روجي تام baat ba daa gudd am na ndombee baat ba dafa rëy kanam nga daa wénde mel ni weeru badar bakkan ba da ne tong sëñ bàmba nee na gémmiñ gi daa yott dafa foŋ am na sàkk la yàlla teeg la dafa nooy Mustafa xam la mu daan bàkkoo xataa dama ni rabbi fasanu tàddi bi yàlla ma yor moo rafet nu ma yore Cheikh Xadim njool Makka ku bari woon kersa la xafe dafa sëqën bët dafa réyén lay weex ci bët ba daa weex tàll lay ñu daañul kukk daawul xuus ci mbooloo fu mbooloo ma yem lay yem ñetti baaraam la daan lekkee daawul jëw daawul reetaan du mere kenn ba di ko dóor sallallahu alayhi wa sallam Aysa dani njogal màkke jikko mooy alxuraan moo ko yar Aysa mokkal ñaari junni addis mokkal la alxuraan moo jigéen ñu waxtaan njol màkka sangu ci benn pan sango njol màkk ci benn mbàjj Seydina Jibril ñëw ci mbàjj ma wax ak Mustafa Aysa bàyyi Abubakar bi ñoon Mbàkke gàddaay moom la àndal sëñ Bàmba ne koo Moustapha moom nag maa xam jikkoom xam melokaanam man la yàlla jox ndigal ma liggéeyal ko tagg ko lam yabdu misla Moustapha Muhammadi lam yabdu misla Moustapha Muhammadi maa kaana mu la waxte rabi be ja day بي ومن خوارق خبدا ما زغل مبتدا على أدى من أدى تيني بيبي أنكبوت النسجا ما الأمان البتايا أو من بيخشتا ذاتي إما قصر كينبي والكافر دخل أتى وعسر ما ومن الشيء لم يرى ورجو بالألمين كينبي وغزول تذكر ما أرغته الأكبر في العارف من كينبي إما الأفيز الماني يخلر عن المدافع لكل قبل العشاء يلا كينبي كانوا نيوريا كما يأنور المعنى وهو أنا أسرى بربي المدافع ki nabi ya rabbi salli sarmada ala nabi ahmada wa ala sawir oda wa salli wa sallim ki nabi ya rabbi salli ahmada ala nabi ahmada wa ala sawir oda نقول لك يا ربي صلي كل على رسولك الامين وعلى ذوي اليقين وصلي وسلم كي نبي يا ربي سلي في الدعاء على الذي مع سمارة وعلى ذوي القمارة وصلي وسلم كي نبي يا ربي سلي كل على نبي خير الانام وعلى على دوامه وصبيك وسلم نبي يا ربي سلم في الوقوف قلبك على الفسيس وعلى زاب الخنوط وصبي وسلم كي نبي يا ربي سلم في النار على نبي فم النزار وعلى زاب الفخار يا نبي يا ربي صلي في الصباح على النبي صلى الله عليه زغ الفلاح وسلم يا صلي وسلم في المساء والليل يا من خدوسايا على رئيس الوصايا خير البرايا سلمي جل مكة يا ربي صلي بسلام على النبي فدا الدوام الله وسلم الكرام بي يا من بي تدت نداء يا من بي تالا تالا يا من تالا يا من يدا سبابا وذلك يا من فلا لسن تدايا لسن تدايا لكل شخص مسلم كي نبي يا من بي خن خبرا سبابا من خطابا جرى رب الورى كني بلغلو خرسياب لذب خرسياب كني بتنزو مدلما وكل من امزجه نجل ماك وخلو من خدنا وما سبيل سمايا تخبار ذاتنا bayna jabaani Cheikh Bamba suma na a milan sama aylan wajal dara safa la laysa lama ci debi amado rabbul ana binjenda abakare sa la dalil dalil arrazabita sama